asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Seck sëriñ Seexu dégglu naa sa wax bu njëkk ba ci bu mujj bi lépp a rafet lépp a sagu lépp laa kontaan jërë jëf sa maam siñ ca na ba dani nag bu wóoluwul woon eh, béjjënam du ko xasenoo ba nuy tàggoo ca aéroport la ma la wax loolee nekk ci man te loolee mooy dëgg nee la maa ngi nii di dem yéen laa fi bàyyi diine jàngoog njaboot gaangoog bokk gaangoog yàlla mi yore sutura yore ndimbal yàlla na boole dimbali gën leen sagal yàlla na gën noo jàppale